waaw mais <laughs> Gaston nga noonu joxal ma Gaston si jox ko Marème. président maa ngi Gaston gis nga fi Marème génn tey. vraiment ci zone la génn loolu nekk loo xam ne zone la ñun sama man kër sama kër man sama kër couleur yëpp bëgg naa ko rouge rek laay bañ rouge. rouge moom bëgguma ko sama kër duma ko xamee sax bi may ñëw kos bu laa bëggoon sol ma ni déedéet hmm. rouge moom rouge la gis du baax sax hmm? euh, ba dafay ma ko jox nekk turki vraiment di doomu ah, da ko fàttee jël nag dafa jël rek jox ma tuuti moom léeg-léeg bu jeexee ne dama perte bu amee yaram ne am naa tuuti président maa ngi leen nuyu bu baax vraiment di kontaan ci li nga xamante ni moom nga ma defal mooy invité ma woo ma ndogu vraiment fas yéene ñu waxtaan ci lamb bu waxtaan ci jamono ji ni fu toll euh, di nuyu Marème Faye bu baax vraiment loolu nag nekk na loo xam lu am mhm. di la yëgal ni combat bi nga xam ne tëgg naa ko barki démb euh, muy combat bi nga xamante ni bii dafa niil combat la boo xam ni dama koo tëgg sama xol bi jeex xol ñëpp jeex mhm. parce que ñaari mbëri kenn bëri wu ji Lac de Guiers Eumeu mhm. boo xam ni bi ma koy tëgg sax sama ko tëgg parce que Lac de loolu nag loo ko loo xam ne xam nga ba yow euh, Gaston keroog mere naa la laajoon laa moo tax ma ñëw si. non non defal na xaaral tuuti. li tax ma yokk ñëw sax loolu la parce que. waaw defal na bi ñu ne ma dama mer parce que xamul dañ marem a nga leen toog ñuy seetaan. seetaan nañu combat bi marem teg na fi léwal man naan. la de guerre la de ñuy bëre ñoom ñaar mu xelli deuxième ñuy bëre ñu xelli troisième. Mhm. marem keroog cinquième sax xelli na ko xelli naa ko. après mujj gi bu ñu paree noonu ci la ñu teg reer bi ñu reeree ba pare noonu. ñu tegaat ataaya ba cinquième. après ci lañ jéem a comme pour lan loolu dafa yàgg. waaw combat boobu nag dafa yàgg loolu moom yaakaar naa ni maa ngi jégalu Sénégalais yëpp vraiment di leen jégalu. ndaxte combat la boo xam ni bëggee ma ko woon noonu parce que combat yu mag yooyu lamb di doo ko tijji ngeen nii loolu rafetul man su ma yow ci waaw déglu ma ma ànd ak yow dama bëgg parce que gis nga réew mi fu mu toll mm-hmm. booy doñ mer lépp lu ma takkoon ma tekki ko bëgg gaay kon bëgguma benn mer bu ndaw dem parce booy bu ñuy mer lu rek deuxième vague bi di ñëw bëgguma lu ko indi. yàlla tere loolu laa xam nag moo tax tey ma ñëw ñu fas yéene waxtaan xool combat yi ngay tëgg kam parce que combat boobu boo ko dama yaakaar ne woon ni comme lan Eumeu Sène na ko daanoon mhm. combat ba métti ñu bëri njëkkoon a bëree Eumeu Sène duma ko ci combat boobu mhm. ma yaakaar ne lak day ñëw jël revanche am daan ko

passion bi nga xam ne am naa ko passion la lamb bu la nga ci dugg benn weer da ngay passion ba pare passion la am vraiment gëm-gëm la am jóge lu ko xam ni mën naa am da tekk ci lamb mm-hmm. tëgg ko mm-hmm. la Don mën nañ koy woowee Gaston la Don King mm-hmm. maa ko njëkk a génnee Boy maa ko njëkk a génnee Tyson fayee ko dañ ma war te lamb jooyu yëpp da perte lamb keroog bi da perte lamb keroog bi déggoo lu ma la wax waa ji indi suuf si suuf si enceinte bi gars yi di bëree hmm. war naa ko jox 1500. léegi dama la bëgg a conseil hmm. ko bëgg conseil li ma lay conseil mooy Gaston dama la bëgg a teg ci yoon woo xamante ni dootoo parce que comme yaa lamb da ngay vraiment lamb ji métti na maa ci benn président lay déglu vraiment loolu moom boo ci a a bàyyi a dem foo mel ni pàkk lambay jënd say porte ak mhm. ay lal ak yooyu xam nga yooyu du yàqu te doo ci perte nga jaay ko wala nga jéem a yor ay ginaar wala genre comme ça comme yow loo dugg perte. vraiment del jëndalu del dugg ci loo perte. buy taw sax mën nga koo bâche. du tooy président yow ay bant nga ma yéene. waaw ah, mais loolu Louga laa dëkk rek nga ma ñaamur ñaamur nga da ngay jaay ay bant. li ma bëgg xam na ko président nañ ci bu yàgg loo xamante bii moo jiitu loolu ma fiy ñëw. Hmm. ma la woowee téléphone wala ma fo dama la woo jotuma la ma vocal la vraiment nga lire vocal bi tontu woo ma. loo bëgg xaalis. waaw li ma bëgg mooy koppar goo xam ne dama koy jox ma tëgg yeneen kalaaf. Hmm. parce que kalaaf yi xaalis da koy def. ana sama turando. chéri sa turando yoruma ko fii de ma jëli ko. ma jëlee ma ko waaw. parce que Gaston fa ma jox xaalis tey. mais woon naa soo ñëwee ci yow samay samay sama sama sama sama àdduna que gouvernement bi ñi ci nekk lañu samay soppe lañu ñu baax lañu ñoo xamante ne bii dañuy liggéey vraiment loolu nekk loo xam lu am solo la. dëgg parce que man boo gisee booy bi nga xam ne problème Adji Sarr beeg Sonko sama xol bi da cee jeex daal. parce que ñu la ciy lubaale day ci waxaale lu ñaaw yoo xam ne jaru ko. dëgg la jaru ko Marème maa ngi ñëw. pourtant bari na ci caisse noire boo yóbbee foofu jal naa ko foofu yu bari benn rek nga indi benn. maa ngi ñëw mi ngi foofu ma jal benn rek sama turandoo yi boo yóbbee caisse gu ñuul gi jal naa fa yooyu yu bari bari foofu jox ma ci benn moom lay séddale gay waaw très bien Gaston yow foog ma taral la quoi fan ban fan nga ñibbi. Louga laa ñibbi Louga. non waxuma Louga la dama ni fan ngay fan ngay fanaan fii Dakar. parcelle. très bien léegi 24 bi. parcelle laay faral tey vraiment Louga xam naa suba laa su ma xëyee laay dem Louga. waaw jëla foofu 24 bi dégg lii pour kan la. yaa ko moom <laughs> maa la ko tarale sama tërëndoo la dama ci fier ma koy jox nit. jàppal président bul fàtte yow laa tuddee drapeau Sénégal. waaw joxaat ko. téeméer ah, jox joxaat ko na jënd ripaas. ripaas pour lan say xar yi nga kii pour xar yi. yan xar fi da nga fay gis xar. ankay fa ay dara. lu Ay waay ay waay ay waay